ah ñun dañoo am lu ñu naqari li ñu naqari mooy ay mool lañ dañuy dem géej yaraax fanaan la xam xamul mbaal bëccëg léegi nag ñoom def nañ seen i doléyaat ne waa Jowaalo ñoo ko ñoo ko initié ak waa Mbuur ñëw force ci loo xamante ni suñu coordonnateur CLPA waxu ci kenn lu loolu mu ànd ak ñi ko neex dem daal euh, euh, signé ko te ñun wax tawuñu te ñun ay acteurs lañ suñu matériel ñoo ko moom nit ba bu fekkee dañ laa fal bala ngaa dogal dara dangay ñëw si base bi nga wax ak ñoom dégg nga door a dem si état mais xëy benn bis rek ñëw ñu nañu ñu mbaali ba teer ñu nañu da ngeen du ngeen dagg célébrité gaal gu fi mbaal boo ñëwee kenn du ko jënd marière yaa ngi ne woo ñu ne ñu bu ëllëgee du ngeen mbaale du am ku ko jënd te ñun lii mooy sunu teraanga am nañu neuf mois yoo xam ne dañuy toog di galéré ñaanuñu lebuñu toog nekk si suñu koyen am lu ñu lu ñu naq lu waral mareyeur yi ni duñ jënd seen jën yi nga xam moom ngeen état bi moo leen moo leen ne képp ku fi jënd jën boo ñëwee ñu la daggal stabilité pour nga kii pour nga dem jaay léegi ñoom ñu effre ñu ñu dem si euh, euh, euh, kii service de pêche bi chef bi kii fi nekk ñu waxaw mu ne moom si kaw la jóge état nag buy dogal dara si ñun ñun baadoolo lañu li ñu am mooy lii la ñu am ñetti weer yi moom la ñu am léegi nag ñu bëgg ñu koo xañ si loo xam ne waxtaanu loog nit ñu waxloo dara nga ñëw rek jël sa dogal daal di ko ñëw ñu ñëw ñu naa ñu voilà waa Bargny ñoo ci d'accord ak nangam nangam yaraax nga wax ne Bargny ne Tëngéej ne Mbuur géej yi bokkuñu man fii may wax ak yow géej gi géej gu xóot la di nga daw si Joal lu mat 40 kilomet boo sànnee mbaal mu laal suuf fii goro gi boo ku waay soo mënoo faa mbaal jën léegi nag fii am na ay ñoo xam ne ñun xalaatuñ suñu bopp waaye ñi nga xam ne ñoo nekk suñu ginnaaw am na ñoo xam ne ay mbaal yu ndaw lañ yor mbaal yu ndaw yooyu ñu yor mënuñu mbaal bëccëg te ay kër la ñu yor comme ñun. mooy dañoo xëy ministre de la pêche envoyé fi benn délégation ñu ñëw ñu fii mardi ñoom ñu ni ñoom ñu ni dañuy tere mbaal guddi mbaal guddi gi ñu bëgg a tere waxtaan nuñ see kenn bi ñu ñëwee yaraax d'ailleurs bu ñu demee si yeneen zone yi ñoom waxtaan nañ ak ñoom mais am na loo xam ne mais bi ñu ñëwee yaraax li ñu leen teg mënuñu ko teggi ñun bi ñu waxtaanee ak ñoom ñoom d' accord nañ ba dem di bi alors que au lieu que ñoom ñu bi dañoo jàdd fii ñëw ci mareyeurs yi an an an beleer yi an pêcheurs yi ni leen bu ku fi mbaali guddi bu leen ko jënd ñun nekkuñu si réew mi nga xam ne tey dictature lay doon wala réew moo nga xam ne da ngay def par force dañoo nekk ci réew moo xam ne on a besoin li nga xam ne mooy lan

xam nga man mel ñun ay xool lañ boobu day ñoo ngi dem géej neuf mois ngi ñoo ngi dara essayé géej gi dafa cooral géej gi am cën waa Mbour tëj lay seen fanaan ak juwaala jékki-jékki rek yaraax loo xam ne loo suñu fanaan ñu buñ tëjee suñu fanaan léegi fa fa fa lay dem ah ñun géej gi trois mois yi lañ am trois mois loo xam ne mosuñu am xëy li lay ñun moo le duñ ko nangu ba ñu ndogal bi fu mu jógee ñoom ñoom li ñuy wax ñoom waa tefes waaw nee nañ nee nañ ñoom waa tefes nee nañ dogal bi fële la jógee yaa ngi dégg si ministre bi la jógee te ñun yaa ngi dégg balaa ñoo ñoom caare la ñu njëkk réunion yee te ñun capitaine yi bokkuñu ci xam nañ lañ bëgg ñun duñu daw duñu dellu ginnaaw am ñu dañoo yor suñu ay njaboot di leen dundal géej lañu am ñu bëgg ni kenn du fanaan loolu du yoon fa lañ ka teg du yoon loolu du bi ñoom waxtaanu ñoo waa dëkk bi dañ jékki-jékki rek ñu ñoom lii lañ tëral lii la def te loolu jaaduwul ñun géej lañ am yaa ngi dégg ministre Macky nag su bëggee ñu ànd moom day def lu ñu neex ñun du yoon muy def loo xam ne neexuñu fii nag bu fekkee lii lay dundee ak ñun benn nit du yëkkati kartam mooy suñu bëgg-bëgg ñu appliqué loolu mais duñu xëy xëy rek jékki-jékki andi benn loi ne ngeen di tëral loolu duñ ko d'accord tey duñ ko d'accord suba ba ñu si tee nañu sax rey wóor na yàlla buñ nañu rey ñu ñëpp wóor na yàlla duñ ko def ñun géej lañu am ñun géej lañu am géej géej